monsieur Alassane Seck ñu ngi lay nuyu di la dalal. maa ngi lay fay Elisabeth Diatta. nga jiite bu yàggul euh, Ligue sénégalaise des droits humains euh, donc gannaaw congrès gi ñu amal week gi euh, tey ñu bëgg rek xam sa feuille de route lan lay doon. feuille de route mooy rek continuer parce que comme li nga xam yow xam nga ko. Mhm. dama nekk on secrétaire général bu Ligue sénégalaise des droits humains. ma ci nekk lépp dama doon liggéey nekk ci suñu projet yëpp mooy jéem a jàppale askan bi. Mm. jàppale xale yi jàppale jigéen ñi jàppale mag ñi. Mm. ci seen àq ak seen yelleef. Mm. loolu la ñuy continuer rek du am benn rupture dañ koy ndax euh, loolu mooy doon pour suñu liggéey lu am solo la donc ci la ñuy nekk pour xale yi taalibe yi xale ndaw yi nekkee mbedd mi taxawaalu. ak euh, surtout kaso bi li mu xatee kii nit ñi koy jàpp damay wax ni di fàttali nit ñi kaso jombul kenn bu ko kenn fàtte donc ñun am nañu droit am nañu devoir jàppale détenus yi parce que détenus yi bu ñu fàttali ni benn droit lañu perte mooy droit à la liberté donc du ci loolu lañuy taxaw di wax daan nañ ni al Sénégal jot nañ daal ñu gën a ëpp yërmande ci détenus yi di leen tabaxal kaso yoo xam ne ñu mucc ayib pour que nit ñi mën a dëkk dëkk boo xam ni dëkk bu am solo la. Ah, justement lan moo tax nga bëgg a def focus ci ndaw yi. ba ndaw yi xam nga ndaw yi amuñu doole ndaw yi amuñu dañu nekk ay nit ñoo xam ne amuñu kattan amuñu ku leen jàppale donc ñun suñu gisee xale yoo xam ni amuñu juróomi at di tax taxawaal ci mbedd yi talibe muy sénégalais surtout sax léegi ay étrangers yu bëree baree bëri léegi nii daf ñuy jaaxal bu bàyyi état bi ñu teg waxu ci dara boobu ak léegi nii pour ñun daal jot na ci ñun vraiment leen jàppale bu baax a baax pour ñu ëllëg ñu mën a am seen droit ak seen ak seen yelleef. xanaa yéen projet état gim ne woon day génnee ndaw yi ci mbedd yi doyu leen. non non doy ñu parce que eh, Elisabeth ngi gisuñu dara parce que loolu mooy deux pas en avant cinq pas en arrière parce que pour ñun léegi dafa mbir mi dafa gën a yokku. soo xoolee léegi mbedd mi Ndakaaru dangay tit pépp foo gis yaa gis ay xale yu ndaw amul juróomi at amul ñetti at taxaw ci mbedd yi di taxawaalu ba xaaju guddi loolu soo ko gisee état bi li mu defoon amul njariñ ndax loolu mooy benn gutu ndox ci biir géej ndax loolu tax na ba tey ni phénomène bi dafa gën a yokk Elisabeth donc loolu moom naqar yi jaaxal na lool ñun daal dañuy waxaat état bi defaat effort bu mag a mag ci liggéey boobu Mhm. ci ndaw yooyu la ñu gis ne ay ndaw yàgg nañu wala fan yi yëpp ñoo ngi wàcc ci mbedd yi bëgg ne dañoo bëgg a jàngi mu am benn droit bu ñu leen xañ euh, ban euh, appel justement nga ciy def. waaw xanaa di ñaan rek ñaan bu baax suñu mbokk syndicaliste parce que man syndicaliste laa déparé ñu am yërmande am raison am xel am xalaat ñu ci ëpp ñoom ñu ci ëpp ay parents d'élèves la ñu ñu mën a jàppale xale yi parce que lu jot jot na ndax grève yàgg na lool lool lool. comme dégg naa barki démb ñu ne am na jumba bu am ci état bi ak juróomi syndicat mu des yenn ñaar ñi pour ñun dina jot ci ñooñu ñu am responsabilité def effort def compromis ak état bi pour ñu trouver solution pour ñëpp juboo ci. te nga jàpp ne solution bi ci kan la war a jógee. solution bi nag xam nga loolu wax compromis. Hmm. loolu mooy donnant donnant. Hmm. ki day joxe nangu lu mu am lu mu perte ki joxe pour ëllëg parce que pour man bu nekk loo xam ne da nga koy trouver solution boo xam ne day trouver ci fan. Mhm. day am processus boo xam ne da nga surveiller di ko respecter. Mhm. su ñu amee ay accords ñu war a respecter yooyu dafa am ñoo xam ne dañ koy nekk garant accords yi. Mhm. donc loolu su amee dina gën a yomb mais yaakaar naa état bi amul aussi ay moyens na am benn avancée bu am doole. comme même li ma dégg jege na cent milliards quatre vingt dix milliards laa dégg loolu état bi da nga su ko dugalee ëllëg moo mën a joxe ay promesse joxe ay ay su boo amee ñu ko surveiller ci loolu yaakaar naa dina nekk loo xam ne dina mën a sottal mbir mi. monsieur Seck am na tam beneen mbir muy détenu yi tey lan nga seetlu ndax am na ay avancé ci anam giñ leen téye. naam am na avancé nag parce que du xoolee man nekkoon naa observateur prison pendant quelques années. Mhm. dama naan dem ñuy lekk lekk boo xam ne xaw na doy waar léegi nii depuis deux mille deux seize état bi yokk na euh, seen euh, pension journalière. mu ñekk ñaar téeméer ak nangam donc pour man am na avancé naam Euh, kaso yi lu gën a jaxasee kaso bi loo ko gën a mettil mooy nekkin bi ci biir kaso bi dafa xat dañuy gën a yokk ndax kaso yi bu nga ko fàttee depuis 1960 amul kaso bu bees à part bi am suñu côté an bërki démb kaso bi nekk ndar na téeméeri at bi nekk rëbës léegi mu léegi téeméeri at rëbës bii bërki démb 1926 la woon donc laal pour ñun état bi jot na mu ànd ak jamono tabax kaso yu bees pour que détenu yi nekk ci situation yoo xam ne situation wu nit la loolu moo manqué Sénégal loolu xanaa bokk na ci seen feuille de route yi ngeen di gën a yaatal. loolu mooy jiitu parce que ñun am nañu chance liggéey à l'observateur des prisons liggéey nañu foofu pendant ay at xam nañu fa la fa nekk donc suñu ñun dañooy jéem a naxante ak état bi waxtaan ak ñoom ñu jokkoo ñoom ñu jéem a respecté traité yi ñu xam ne Nations Unies moo ko garantir ak convention yi pour que nit ñi détenus yi nekk dans des yoo xam ne dana mën a nekk ci seen jàmm ak seen yaram xaar seen kaso jaar ci purgé seen peine dans les règles de l'art ci ci jàmm ak salaam loolu daal pour ñun mooy jiitu tey gis nañ tamit ñu bëri euh, dañuy bëgg di def doxu ñaxtu ñu dañ leen koy tere mu mel ni euh, lii di euh, dañuy dañuy salfaañee seen ak ak seen yelleef. loolu moom dëgg la xam nga état bi dafa am depuis 2001 constitution bu bees mu ne léegi marche ba nekk droit constitutionnel. Mhm. mooy loi yëpp loolu moo ko jiitu mooy constitution moo moo mayee sénégalais citoyen moo am droit marche heure bu ko neexee da yëgal rek kilifa gi. Mhm. donc pour ñun loolu dafa nekk loo xam ne a nekk exception mooy mooy ñu interdire ko pour des raisons concrètes mais lu nga waxee rek ñu leen mën a encadrer ba pare mën leen a nag réprimer ama loolu jubul. Mhm. donc daal mi wax état bi gën a am xel mu yaatu. accepté ku bëgg a marche nga encadré ko marche pour ñun loolu mu tur amee ak jàmm nekk ñooy. la xew ca Ukraine ban appel nga ciy def. waa xanaa di wax état bi xam naa am naa ci yaakaar ndax dégg naa barki démb ñu ni secrétaire d'état au Sénégal l'extérieur mu doon liggéey ak ñu nekk yi fa nekk te yaakaar naa Ukraine dëkk na naan dëkk bu sori tax naa temps sedd bi nii dana métti lool xanaa daal état bi ñaan ko mu def effort bu gën mag ndax loolu lu jafe la ndax Ukraine Russie yi dafa nekk loo xam ni lu ci àddina donc état bi am ci xel ak ay pexe yoo xam ne dina tax ba sénégalais yi fa nekk mën na mucc ci xeex boobu. wàllum intégrité territoriale gisoo ne dañ koo salfaañee suñu diggante maanaam dëkk yi yi sekk CEDEAO euh, li jëm ci Mali ak Burkina. comme CEDEAO dafa leen CEDEAO dafa sanctionné ñooñu ndax dina wax ku mel ne Mali dafa ne day def transition cinq ans. Mm. loolu dafa jubul. parce dafa nekk lu ëpp presque ëpp na mandat ndax am na mandat sax yu am quatre ans États-Unis mandat am quatre ans la. Mm-hmm. donc loolu dafa nekk loo xam ni lu jub. pour wane daal wane daal lu xeeñ lu xeeñ lu baax. Mm-hmm. donc pour ñu daal jot na ñi nekk ay intérimaires yore nguur gi par force mooy ñu def coup d'état. Mm-hmm. boole ci seen xel ak seen dal accepté nag nanguwoo liggéeyal seen askan mais bañ a nekk di di foqati nguur ba pare di ko ci la neex pour ñun loolu dafa xew ci àddina en deux mille vingt deux monsieur ñu bàyyi la nga delluwaat ci liggéey wi ndax xam nañ ne ba nga jëlee euh, léegi ba tey euh, sa téléphone mënu mënu mu fayul. ñu lay jaajëfal bu baax a baax di euh, di la remercier. merci Elisabeth.